bisimila dal leen ak jàmm mbokk internet yi ñëwaat ak yéen ci xibaaru ndaw si ñu fi jiiñoon ab sàcc yeewu ko bay fooy ay cëram foofu ca Sacré Cœur ci xibaar yi ñu mujjee jot ndaw si ñu fi jiiñ ab sàcc daanaka du sàcc ndaw si mi ngi am vingt-neuf ans at yu manqué benn du ab sàcc waaye dafa àndul ak sagoom du sàcc waaye dafa àndul ak sagoom ndax xel mi yépp nekkul ci moom bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi tukkee ci waa Libération bis bi ñu ko joxoñ baraamu tuuma ci ab sàcc moom ndaw si dafa demoon ci ab boutique prêt à porter ngir jënd fay bagage waaye lu yàlla di def ak lu kenn xaarul moom ndaw si ba mu yegsee ca barab ba ba tàmbalee tànn ay yére ki dàll fala ko mbir mi dikkalaatee daaneel ko mu tàqalikook sagom ginnaaw bi mu jëlee li mu jotoon a tànn ci ay yére dafa dem ci kane ca boutique ba ne du fay diggante fayal yére yi ak duma ko fay ci boobule wax ak jokkalante ci la ndaw si dal di mujj sànni yére ya ci suuf dal di génn nag jubale ci beneen boutique bu nekkoon boobu lépp boutique rek ko jàpp ko yeew ko ba mu ne ngodd dal di koy jaarale ci ginnaaw yóbbu ko ca ginnaaw boutique ba ndax dañu jàpp ni ab sàcc la ñoom xale lu góor yi jàpp ne ndaw si dafa ñëwoon ngir dal di sàcc magasin bi ginnaaw bi nga xamante ne jógee ko na ci ba jàkkaarloog moom dañoo yeew ndaw si ba mu ne ngodd ba noppi foowee ay cëram li tubaab di woowee attouchement sexuel waaye bile yoon boobule attouchement sexuel ñoom xale yu góor yi jotuñu ko filmer ci suuf lañ ko def bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu ñu mujjee jot ñoom xale lu góor yooyu nga xamante ne nii yoon joxoñ na leen baaraamu tuuma ci wàllu fowee guñ doon fowee googu leen ndaw su jigéen toll nañ ci ñett te ñaar ña daanaka yoon teg na leen loxo kenn kaa ca des te dafa daw ndax daañu leen ci teg ay daan tëj leen ci waaw am ndéet ndax ka nga xamante ne ni rëcc na ci daañ ko jàpp wala déet li ci kanam raw li ba te Tactic TV dina leen ko toppal lu ci mënti am ñu fàttali leen ne ndaw sii nii du am sàcc xelam dong moo neexul na am sax ci famille bu am daraja lool la bokk magam bu jigéen avocat la ca Paris ma nga bàyyeekoo ci benn dëkk ñaari gaar di Thiès waaye li ko indi ndakaaru njaay mooy daf fee loué woon ab appartement ginnaaw si nga xamante ni jotoon nañ ko recruter jotoon nañ ko recruter ci fonction publique def ko ab cadre waaye mel na ni googule liggéey taxu ko jig lool ndax daanaka ñetti fan dong la def ginnaaw bu mu ñëwee ci liggéeyam bu bees bi nga xamante ne ma nga fa dal tàmbalee ko ci fukki fan ak ñetti ci weeru sulet bi ñu nekk maanaam taxu ko yàgg lool lënt ci moom ndax ci weeru koor gi ñu weesu rek ma nga doon faju ca l'hôpital bu caaroy bi nga xamante ni fale ñuy fajee ñi nga xamante ni seen xel neexul fii la ñuy yemandi ak yenn ci xibaar bu nu mel lu ci ruusaate ci lu bees dañ ci ñëwaat ak yéen ngir indi yeneen leeral Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal